assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa mbokki darsu bi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen bal xaq di leen balu xaq di sàkku ci yéen itam ngeen balu xaq bu baax a baax di jiital ci nuyoo yooyu son excellence tabaarakallahu mu jël nuyoo majmuu bi yëpp jottalil ñu ko mboolem ku nekk ci majmuu bi rek jël ñu suñu nuyoo di ko teg ci loxol suñu excellence wala directeur de programme mu jàllaleel ñu ko mu mel ni dañoo delsiwaat ak Cheikhul Haaji Malik si radiyallahu taala anhu fi nga xam ne fi la yemoon ak ñun ci xilaasu zahab bi boo seetloo mi ngi yemoon ak ñun ci soxna soosu ñuy wax hind ba ni mu génnee àdduna ña ko jullee ñaata at la am ak la ca xew yépp tabaarakallaahu góor gi bëccëgal na ko bu mu bëccëgee tey nag muy ñëwaat ci soxna suñuy wax barratu yenent bi nag sallallahu alayhi wa sallam moo soppi turwa waaye moo di zeynab yenent bi moo ko tuddeewaat zeynab ngir dafa génne foofu ci moom ñu ne fu mu génnee mu ne ma ngi génnee ci barra te xam nga barra mooy teg ak mbaax mu ne génne ci mbaax de moom dara jëru ko moom soppi turwa waaye Zeynab bint Jaasin moomu Jaasu moo ko jur bi bokkoon ci bani Asad di doomi bàjjani Moustapha ndax bàjjeenu sallallahu alayhi wa sallam bu ñuy wax umay umayma bint abi bint abdil moo ko kon ca barra moomu la ñuy déparé tey njàng mi wa barratun bintu jasin zaynaban duciyat lada nabi imaamil asqiya hudumi nee wa barratun barrat bintu jasin te mooy zeynab bintu jasin duciyat wooweef na ko zeynaban zeynab bintu jasin fan lañ ko woowel mu ne la den nabi fakk ñu soloo ka te mooy yenant bi imaamil ki nga xam ne mooy njiital ñu tabe ñëpp ñëpp ñi tabe ñëpp boo leen dajale woon ka nekk seen supérieur nekk kilifa moo di rasulullahi alhudumi kay xaayaan maanaa kay aji mën a joxe bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax Zeynab bongo ndax Zeynab mosoon na am borom kër avant sallallahu alayhi wa sallam góor gi ne waaw waaw rasulullahi joxoon na ko benn njabootam bu ñuy wax Zeyd ibnul Xaarisa benn bi nga xam ndax Zeynab Zeyd kom yeneen bi da kaa woon ba matee am soxna gis na ne kee ci njabootam la bokk kee ci njabootam la bokk ba pare nekk doomi bàjjanam daf ne ko ah fi mu nekk nag utal la borom kër jot na te sama doom ji ma doomoo it utal ko soxna jot na yeneen bi maye sëy ba waaye Zeynab d'accordu ci woon cent pour cent ndax moom dafa jàpp ne lingeer la bokk ci yax bu rëy bokk ci fayu bu rëy te booba mu ngi xoolee Zeyd bëtëb yow dañ la fee indi jaay la xadija xadijal jik may la sallallahu alayhi wa sallam yow ab jaam dong nga surga dong nga doxandéem dong nga fi loolu mi ngi koy xoole neexu neexu ko waaye yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moom comme que alquran moom bu tëralee rek ak diine ni muy tëralee moom dem ba jeex tàkk rek amul te lii bàyyi lii comme li xew léegi déedéet mukk maana la waaye ndaw si ak sayit saa bu ñu wéetee rek ndaw si yóbbante ko xeer yu sewa sewa sewa sew lii xam nga ne sariya dong ko mën te diine lislaam dong nga ko mën góor gu doy ni man lingeer gu doy ni man garmi bu doy ni man borom yéex bu bu doy ni man notable bu doy ni man noobal bu doy ni man façon tur wu mu koy wax may jàll ci sa ginnaaw lii de yow ku la ko waxoon sa dund sax doo ko gëm yow waaye sëy saabu yeewoo rek na rasulaa dama wàcc ndaw si yeneen bi nekk dee téyel rek téyel rek te fekk na sunu borom subhanahu wa taala wax na yenent bi nag sëy ba nga maye woon ma nga am ñol-ñol waaye nag sëy bi dafa tas te bu tasee incha allahu yow yaay takkaat Zeynab moomule waaye saa bu ñëwee rek yenent bi defal ko ba mu delluwaat waaye kee dabbaliwaat kàddu ya saa bu ñëwee rek kee dabbali kàddu ya mu ñëwaat ci rasulullah yi wax wane na day génn ci yëf yi waaye ba mu soobee yàlla mu wax yonent bi ne ko su ñëwee di la wax di la ko wàcc ne ko na ko wàcc yow it su idda jeexee automatiquement na nga ko takk ah mbir ngay bëgg am de moom nga déggoon sunu borom naan falama qada zaydun minha wataran zawajnakaha ma ngo loolu jàngoon nga ko de ba nga xamee ne Zayd daal dem na ba jeexal aajoom ci soxna soosu jël nañu soxna sa mayaat la ko yow Moustapha loolee la Cheikhul Haaj Malik dina tële file min baadi ma qad qada zaydun biha wa tara ixtaajaha surat al ahzabi fal taazimi ngoog Seydul Haaj Malik radiyallahu anhu nee na yenent bi takk na ko min di ma qad qada gannaaw ba nga xamee ne atte na jeexal na zeydun zeyd bihaa ci zeynab watara soxlaam aajom xanaa xanaa xaw na descendre l'ixtibaas nga ne ko waaw si xisa boobu di wax dëgg yàlla yitteel na su ma ko xamoon dëgg-dëgg mbir mi fa mu commencé ak fa mu ndax coow lu bëri na ci lool ndax ba coow lu jigéen ñaan dafa takk jabari doomam ak nàppati nguuloy léegi lu ne yahud yi jël ko teg ko ci dara sallallahu alayhi nga lu ne ñu teg ko ci deru sallallahu alayhi wa sallam bi waaye yenent bi sallallahu alayhi wa moom ah comme ndigalal yàlla lay doxee munul def lu dul loolu góor gi ne na soo ci bëgg lu leer nag foog dangay dem ci suratul ahzab soo fa demee yëf dana fa mel ni bëccëg làq na xisab zeynab ak zeyd ak yeneen bi takk takka mbir ma fa mu jaareek la ci am ci ay coow ak rumeur ak yëpp yëpp soo ko bëggee xam làq na ko suuratal ahzaabi suuratul ahzaab faltazimi rikki lillahi wa rasuli demal nga takkoo saar wa jéem koy jàng soo ko mënulee firi nga dem ci ñi ko mën a firi ñu wax la la xewoon ci mbir ma ndax nga xam mbir ma na mu tëddeeg naka la naka waaw si loolu de leer na moom yenent bi ba muy takk Zeynab ñaata at la ci gàddaay gi góor gi na xam naa ko non seulement yemuma ci xam xam xam xam at gàddaay ga waaye weer wa sax xam naa ko te bañ koy takk it booba it ñaata at la xam naa ko <laughs> góor gi nee na xilaala zi qaadatin fi aami arbaatin ala sahihi laha bajlun min al kon wax na la weer bi wax la at mi wax la ndaw si boobale temps ñu kaa takk booba ñaata at la am ndeysaan ba ko yeneen bi takkee nag céetale ko céetale goo xam ne céetale gu rëy rëy rëy la ba Anas maa Malik daal wax ne naka yeneen bi céetale daal man mosuma fekkee ku mu céetale noonu ci ay soxna am ndax xam nga moom ko nag Madina la woon comme mu fekkiwul xadija nag moo tax mu waxee nga noonu waaye xam nga ne ciitu xadija jàngoon nañ ko xam nga ne loolu kay tabaarakallaahu kenn du mos a gis loolu waa ji kenn mos a gis loolu dégg nga bu baax a baax ndeysaan yeneen bi daan fa invité saxaaba yi añ yeeg yi mais gars yi buñ ñëwee rek buñ lekkee ba pare seen aajo faju ulee ko ñu dem waaye fa la ñuy nekk ci xàll mbere gaan rek lu ne lu ne lu ne ñu dugg ci lu ne débat bu ne ñu yëkkati ko débat bu ne ñu yëkkati ko ba yàlla dikk nag ne ay ca tukku leen génn bu leen fi duggati mukk mukk lu dul ñam bi dafa pare te su ngeen lekkee ay ca jug leen doxi seen yitte bu mu fi amati loola leeroon na moo tax mu ne takk na ko hilaala zi qaadatin ci weeru digg nga ne d'accord ci weeru digg la ko takk d'accord ci ban at ca gàddaay ga mun ne fii aami arbaatin ca ñeenti at ca gàddaay ga la ko takk ala saxiix ci wax ji wér nga nekk d'accord si wax nga ma weer wax ma ñaata at ca gàddaay ga waaye moom booñ koy takk booba ñaata at la mu ne la am na boobale temps ñu koy takk bajlun ak màgg ak foor ak yëkkatiku wala bajlun taraan dégg nga maam cinq ans minal umami ci ay at bañ koy takk ba ko rasulullah salaam am na fanweeri at ak juróom moom Zeynab booba wa fi madinati daaril xaqi qad halakat bi aami isrina inna al fi jéemi danga wax ne ma nga faatu ca madinatul munawwara la faatoo ba muy faatu it waaw ba muy faatu it booba mooy ba ñu gàddaayee ba am ñaar fukki at ba muy faatu it moom mi ngi am juróom fukki at ak ñett la am dégg nga ko baax a baax kon danga wax ne waqad halaka dëgg dëgg nag faatu na wàcc na liggéey mooy Zeynab bint Jaasin fii madinatin ci madina gi nga xam ne daaril xaqi fay kër ak dëgg ga dégg nga di madinatul munawara ñaataat ca gàddaay gi la faatu mu ne bi ami asrina ci atam ñaar fukk ca gàddaay gi la faatu si ñaata at mu ne innal umra dëgg-dëgg dundam daal ca boobale jamono muy faatu fii jéemi aji nekk la ci juróom fukki at ak ñett bam faatoo ku ko jullee mu ne salla ala nasiha alfaaruq awalu man baada nabi qadat fi lmadfani alxarami mooy soxna si yenent bi njëkk a wàcc liggéey gannaaw ba fi yenent bi sallallahu alayhi wa jugee mooy soxna si ci njëkk faatu ci soxnaam yi gannaaw ba fi sallallahu alayhi jugee moo ci njëkk a faatu ci soxnaam yi kan moo ko jullee Seydina Omar moo ko jullee fan lañ ko denc ca madinatul munawara salla jullee na alfaaruqu Seydina Omar mi nga xam ne mooy aji teqale dëgg ak fen moo jullee ala nasiha ci tàddam googule awalu man mooy njëlbéen koo njëlbéen képp koo xam ne xaddat faatu na baada nabi gannaaw yonent bi saa sa nekk na it fil madfani ci suuluwaay ba alxarami ba di bañ ormaal ba di bañ respect kon ndaw soosu euh, tabaarakallaahu noonu la demee aywa ndeysaan rawat ahadisa ya an summa inna laha faqran bi taswiji rabbil ghafiril ithami Seydul Haaji Malik yéen fukki xadis la solo jële ci yonent bi waaye daana toog ak soxna yonent bi ba mu yàgg kenn ku ne di bàkkoo li la yàlla baaxee mu ne man daal xam na li ma yàlla baaxee te mën kaa wax tiitaroo ko ci yéen te kenn du ko dindi mooy daf leen ndax yéen ñëpp zawaja kunna ahali kunna non man wa zawajani llahu min fawqi sab'i samawaatin dégguloo daana wax ne yéen ñi ñëpp kenn ku ci ne baayam moo toog ca jàkka ja rasulullah yebal ay ndaw ñu may ko ko bam des man sama boroom ci boppam moo maye ci asamaan yi juróom-ñaar malaaka yi seede sëy booba ku ko mu ñu weddi fii ñëpp ne teg kon loolu la daan tiiftiroo Seydul Haaji Maalik na rawaat nettali na solo ahadis ay ahadis yaan ya di fukk mooy fukki hadis solo na ko jëlee ko ci yonent bi salaa summa inna laha topp ñeel na ko moom ndaw soosu am na faqran damu ak tiitaru goo xam ne daanaka defee bitas bi taswiji rabbil xaafir ci sëyloog borom bi nga xam ne mooy aji jéggale xaafiril islami nga ci sëyloog borom bi nga xam ne mooy aji jéggale ji bàkkaar yeeg njuumte yeeg tabaarakallahu kon moom mbiram ah, foofu lay am waaw xamul ndax dañuy jàllaat ci beneen soxna ba am déet nag <laughs> xanaa sama midi di moom des na waaw noonu puus rek waaye suñ puusee itam ah moo ko daal عام مريسي عام المريسيعي مريسيعي قد حيدت جويرية أي عام خمس لدى الجود والكرم Seydul Haaj Malik jëlaat na beneen soxna bu ñuy wax Juwayriya Juwayriya ku ko jur xaaris moo jur xaaris ku ko jur abi darar bokkoon ci bani mustaliq ba ñu demee xare boobu xare mustaliq tabaarakallahu ci la yenent bi xeex ñoom ba duma leen jàppale ci juwayriyam yi mu bokk ci ñi nga xam ne tabaarakallaahu dañ leen a jàpp jaam ba ñuy séddale nag dana ci ñëw ne yonent bi defa takk ko xat xiisat làqeef na juwayriya juwayriya bintul xaarisa yonent bi denc na ko amal muraysi ci atam muraysiya dégg nga ko bu baax a baax ci la ko yonent bi sallallahu alayhi denc moom juwayriya moomu le Muraysiya nag benn teen la woon rek waaye xeexu dafa amoon ci boor booba nga ne ko ama Muraysiya si sëñ Sidi Hadj ma ne xaw ma ko mu ay ama xam si mooy atum juróom ca gàddaay ga ba ñu gàddaay ba am cinq ans la ko sallallahu alayhi wa takk la daa zil juudi fa borom tabe ga ba ñu gàddaayee la daa zil juudi ba borom tabe ga wal karami ak tiraanga yi tabaarakallaahu ba mu gàddaayee ba am juróomi at la takk waaw. kon dañuy jeexal ndaw si bu guddee ñu bàyyi ko fi bu guddul nag ah waaw dafa mel ni dafa gudd xëy na dama doon jéem a forcé de waaye ñu <laughs> ngi ko fa def yàlla bandi waaw rakallaah ñoo ngi jégalu asalaamaaleykum wa rahmatullah